may ma ma leeral ndax seetlu ngeen ni depuis ñaari at daanaka xale bu tudd Adji Sarr porté plainte ku tudd Ousmane Sonko yoon di def liggéeyam seetlu ngeen ni boobu ba léegi usmaan Sonko wax bu mu wax fu mu génn moom ñi mu àndal ñi ngi yàq ci sama der ak ñeneen ay wax yoo xam ne wax yu ñaaw booba léegi gis ngeen ni maa ngi noppi waxuma dara nekkul nii dafa am dafa amul lu ma mën a wax waaye dafa am loo xam ne dama koy sàmm ndax dafa mel ni àddina bi moo bindoo noonu léegi ba nga xam ne képp ko nga xam ne opposition nga nekk surtout soo amee jafe-jafe ak yoon sa premier moyen de défense mooy nga ne état moo la song te bu ñu waxee nga ne procureur moom mooy ci état utilisé loolu moom la ñuy gis France moom la ñuy dégg États-Unis moom la ñuy dégg Finlande foo mën di dem loolu moom ci ma ne comme noonu lay demee na te man it miin naa ko du ci man la njëkk procureur yi ma jiitu fii ci Sénégal aussi noonu la doon demee man tam am na dossier yoo xam ne ñoo jiitu yi noonu la doon demee ma ne kon lii jaruma ci tontu ñaareel bi moo di dossier bi dafa nekkoon instruction dossier nag bu nekkee instruction dañuy tere ko ci wax rawante na nag man mi nga xam ne maa nekkoon procureur ñetteel bi mooy man sama yar yar bi ñu ma yar ak formation bi ñu ma jox mayuma nit nekk ci jafe-jafe ma ko ci yokkal dara man procureur la ku am jafe-jafe rek yërëm naa kon mënuma woon Ousmane Sonko nekk ci jafe-jafe donte mi ngi may saaga donte non non ma ne jarul may parce que saa boo weddee rek tuumaal nga kenn waaye nag nit dafay dem jamono boo xam ne doo moom sa bopp yow kese ay léwén man procureur mën naa muñ loolu parce que tàmm naa ko waaye nag dañuy am ay mbokk am ay xarit am ay nattangoo ak ay sénégalais doo yéen journalistes yi yoo xam ne toog ngeen yuy accusé benn nit ci ay fayu grave te ba léegi tontuwul kon par respect pour vous ak respect nit ñi war naa génn nag ni leen xaaral ma leeral leen ak yeneen ak yeneen ak yeneen léegi nag ma ni kon naa ñëw jàkkaarloo ak yéen wax leen ci lu leer que ni liñ may accuser dara amu ci man du def njubadi man du ma falsifier PV soxlawu ma leen koon ba mu leer dama ñëw nag li ma wax leer na dama ñëw pour leeral maanaam ñëwuma pour xuloo du ma polémique déedéet xalaatuma ko du ma ko ñëwuma pour charger kenn dama leen wax ni lu ko am jafe-jafe rek man yërëm naa kon du mu fi ñëw pour charger waaye nag war naa leeral parce que kon léegi nii loolu amul ñetteel bi ma jàpp mooy nee na am na ay photo yoo xam ne dama ko dugal ci dossier bi te bokk ci pour gën koo man a suruxal boobu tam naa leen wan ne amul suñu paree dinaa bàyyi kàddu gi ak ñenn su fekkee am na yoo xam bëgg nañu leeral ko ñu leeral bu njëkk bi mu ne man dama dugg ci complot bi ndax bi ñuy enquête dama wax enquêteurs yi convoqué leen ko leen ko bu ñëwee ñu jàpp ko foofu sax sant yàlla parce que comme neewul man maa ko complot yóbbu ko Sweet Beauté waxul ni dama doon surveiller Sweet Beauté mais dañu li xew bi mu xewee ba pare bi ñu koy enquête dama ne leen bu ñëwee rek jàpp leen ko loolu daal moo dugal ci ko mun ñu wax mu ne loolu enquêteurs yi ñoo ma ko wax man nag li gënoon a simple ci man mooy ñi ma ñëw toog ne leen Ousmane Sonko lii mu wax nii ay sos la amul mais du ma dugg ci pièce bu boobaa ñu ne gendarme mooy ñoo wax procureur ñoo wax déedéet. man du ma ñëw naa leen ay sos la